ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi di suivre suñu seen bii di IYAT TV ginnaaw loolu ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi. yéen a ngi teewlu IYAT TV. waaw tey nag damay wax rek ci lu ñeel nomination bi nga xam ne nii kii di Emmanuel Macron njiitu réew bu France dig na ko kii di Macky Sall ngir boo xamee ne wàcc na ci suñu réew mi ak jàmm ak salaam. ñu ñaan yàlla def ko ci barkeb Seydouna Mohamed mu gaaw loolu nag Macky Sall wàcc ci réew mi mën a noppal sénégalais yi kii di Emmanuel Macron daal dinay dikk benn nomination boo xam ne nii kii di Macky Sall ginnaaw boo xamee ne wàcc na ci bopp réew mi di réewum Sénégal Sénégal yëpp di ko ñaan ngir mu ne def ko koy nommer pour que maanaam lu ñeel mbirum jàmm nga xam ne maanaam Macky Sall ci gàttal euh, bépp dëkk boo xam ne amul jàmm dafay dem doxi fa jàmm bépp dëkk boo xam ne amul démocratie dafay dem doxi fa ngir démocratie dellu ci dëkk ba bépp dëkk boo xam ne dictature dafaa am dafay dem waxtaan ak ñoom ci dal ak jàmm ak salaam pour loolu man faa dellu si man may wax ne Macron dafa yab sénégalais yi wala dafa nawloo wut sénégalais yi wala dafa jubloo saaga sénégalais yi te xamul fam maanaam te te naka la ko mën a euh, jaare pour saaga sénégalais yi ndax lii moom képp ku koy dig Macky Sall maanaam mooy saag nga sénégalais yi yow fekk koo xam ne dafa tilim ba maanaam savon bi savon bi gën a efficace mënu koo setal ndox mi nekk ci àdduna yëpp mënut a setal Macky Sall géej sax a setal Macky Sall koo xam ne dëkkam dictature la démocratie amatu fa mu mabbu institution yëpp nga xam ne kumba am ndey ak kumba amul nday moo ne ca dëkk ba nga taxaw naan ko yow après dinaa la nommer nga nekk njiital lépp lu jëm ci wàllum jàmm ci àdduna bi nangam nanga affaire yooyu doon ma ne Macron ku yàpp sénégalais yi la. yéen a ngi te IATV. yow la nga koy waxee loolu doo ko wax mu fexe senegal gii ñu nekk nii mu indi fi jàmm indi fi salaam ndax soxla na ko ku ne xam na ne fi mu toll nii réew maa ngi saxaar te ci tàkk la jëm te lépp ak cause de Macky Sall moo ko fi indi nga gis lépp waxoo ci lu ñeel senegal nga xam ne tey jii nii nu France mel tey mën nañ ne Afrique tax particulièrement senegal te fi mu toll nii Macron dafa gën a jël bëtam teg ko ci Sénégal gii ndax. ñëpp xam nañ ne Sénégal gaz beeg pétrole beeg zircon beeg lépp bientôt dañ koy exploité te France fasul yéene kenn ëpp ëppale ko ci moo tax fi mu toll nii mu ne ci ginnaaw Macky Sall Macky Sall fas yéene pro euh, maanaam force ñu kii di Amadou Ba ngir mu mën a continuer mission bi nga xam ne ni Emmanuel Macron joxoon na ko ko mu mu di ko doxal te ku ne xam ne ne Macron ku xam ne ne Macky maanaam surgëb Macron la. depuis mu ne ci bopp réew mi ba nëgë ni surga Macron la bu Macron ne wow na mu ne kong tooy na mu ne xipp juut na mu ne wang moom yàlla taxul lijjantiwul kenn koo xam ne nii maanaam ab sénégalais nga lu Macron bëgg la bëgg lu Macron bëggul bëgg ko ndax bu ngeen seetloo sax temps Covid 19 it jamono yi coronavirus bi bu France xëyee tëjee école am samedi dimanche Sénégal euh, xëy tëjee école am bu France xëyee ne def nañ def nañ couvre-feu bu xëyee Sénégal def couvre bu France xëyee génne ay masque ñu xëy ne génn nañu ay masque nangam nangam maanaam ku ne xam na ne Macky Sall ay ordre rek lay jot ci kii di Macron ngir di ko exécuter léegi nag ku ne xam ne ne xolam fi mu nii fi ne nii ku ne xam ne ne France tibb na ci alalu Sénégal ci moomalu Sénégal ba nga xam ne ne fi mi ngi géex amul lenn lu mu bëgg a sante wala lu mu bëgg sargalee Macky Sall lu dul naan ko dañ leen nominer nomination boo xam ne ni yow da ngay ci mbirum jàmm te yow sa dëkk bi nga dëkk amul jàmm amul salaam ndaw ñaa ngi dee ñii ngi jël ndox mi ñii ngi jël yoonu suuf yi fu nekk fu xam fu nit xam yaa ngi fay jaar kaso yaa ngi fees dell ah dëkk boo xam ne nii maanaam ay ay ay détenu politique adduna bi Sénégal la ëpp koo xam ne ne defoo waxoo ñu jàpp ne la ci kaso bi te ko ànd yow maanaam lu mu def jàmm ay nit ànd nañu ak jàpp leen ci ay faux billets mujjul fenn ay nit ànd nañu ak yow ñu jàpp leen ci ay faux passeport mujjul fenn ay nit ànd nañu ak yow taxaw nañu rey nit jul fenn ay nit ànd nañu ak yow di saaga ay kilifa diine mu jul fenn léegi yow nga nekk ci ngan di maami dictature war ngaa taxaw fenn di jox kenn benn leçon de morale man damay wax ne Macky Sall réew moom dem di leen jox ay leçon de morale bu ñu ay yat la ñuy faq fëgg ko ko fëgg fëgg ba màndi ñu dax ko ca ndax dañuy wax ne bala ngaa digle sangaay yow day nga seet ba pare te Sall kuy tilim moo la gën a tilim fi mu ay loxo mi ngi tàq répp fi mu toll nii waaw te gis nga Macron mii damay wax ne man nit la koo xam ne bis buñ ko bàyyee génn wut loxoom ci Sénégal fa Sénégal jëm billaahi fa senegal jëm ndox néew fa ndax façon yi jàppewul jàppewul africain nit Macron moom jàppewul africain nit fii ne ñun suñ pétrole beeg suñ gaz bi moom la teg bët te jàpp na ñun mérito wuñ ko te dañ koo mérito France gay sénégalais yu fa nekk kenn joxu leen fa benn daanaka benn considération africain ak France français ak africain yi nawloo wuñ leen seen alal lañ soxla kon damay wax ne Macron dafay yab Sénégalais yi di leen ñaawal di leen naqaral pour ñu mer gën a bañ Macky la loolu rek maanaam moo tax mu naan dafay jéem a doxal li ku ne xam na ne Amadou Ba mii nga xam yéen a ngi teewlu IATV maîtriser gi mu maîtriser système bi ak xam gi mu xam diggante Macron Macky ak milliards yi nga xam ne daan nañ ànd di ko lebi secret yooyu yëpp Amadou Ba moom moo ko xam moo tax fi mu toll nii ku ne xam na ne Macky Sall bi muy tànn bàyyi na fi ñu gën a am doole fuuf Amadou Ba mais daf leen faa romb dem jëli Amadou Ba ndax xam na ne moo xam secret yi te ku xam secret yi bu ñëwee bu ñu ko forcé Sénégalais yi ba mu toog fi dañoo rek continuer li nga xam ne ni mooy système mu Macky Sall loolu moo tax fi mu toll nii kii di Amadou Ba ku ne xam ne actuellement nii moom mi ngi campagne moom rek lañ ko may ci réew mi muy wër di dem fu ko neex au nom de quoi. di consommer carburant réew mi o carburant goo xam ne ci keesu réew mi la ko jëlee police ak dar ko muy dem fu ko neex te mayuñu keneen mu génn dem naan day wuti sax ay prin daanaka ci yenn dëkk yu kii yi ku ne xam na ne léegi kon loolu fuqati nguur maam fuqati jaay doole ak bëgg sàcc élection yi daal dinay ñëw ndax bu ngeen gisee li fi Macky Sall def lépp ci réew mi jalgati ay loi def lu ko neex te fi mu lu mu def tey bu subaa mu def lu ko gën a pur loolu yëpp dafa am lu ne ci ginnaaw mooy Macron Macron moo ne ci ginnaaw yooyu yëpp di ko jàppale pour que maanaam ñu mën a foqati nguur gi tegaat ko ci loxoy système bii fi nekk. ndax bu ngeen gisee Macky Sall ak ñi ànd ak moom mësuñoo ñemee am fit di def lu mel ne lii ñuy def nii xëy nañ fi ràjje kii di chef de l'opposition muy Ousmane Sonko ne ko doo bokk ci élection yi ñu dem ci yoon ba lépp leer. yoon jox usman Sonko dëgg Macky Sall ne du ko doxal loolu du Macky Sall dong de. yéen a ngi teewlu IATV. ca kaw la jóge mooy ca Macron ndax Macky Sall jàpp naa ne tekk tekkeeralam gii mën a tekki nii ci affaire yi mel ne ku ci neutre mel ne ku ci yëgu dara lépp dafa jotu ndigal ci Macron pour ñu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ndax Ousmane Sonko dafa taxaw devant tout le monde ne bis bu ma toogee ci réew mii ci kàttanu yàlla fasuma yéene kenn di lekk duñu ba balaa kenn lekk Sénégal dañoo lekk ba suur ñu soog lekk. donte lekk mënta ñàkk loolu nag moo déranger kii di Macron te xam na ne Macron fi mu toll nii Sénégal rek muy dëkk bi mu gën a teg bët ci pétrole beeg gaz beeg yeneen yi fi nekk. loolu nag xam ne Macron xam ne ne Ousmane Sonko bu toogee fii ci réew mi ñoom waaye dinañu total waaye dinañu total ndax su boobaa amul lenn loo xam ne dana génn ci réew mi di dem France ndax Macky Sall li gënoon a baax ci réew mi yëpp jaay na ko France fi mu toll nii jaay na géej gi jaay na lépp. lépp la jaay kon tey damay wax ne buñ taxawee fi naan Macky Sall nitu jàmm la ba tax ñu koy jox ay ndombay tànk muy muy wuti jàmm loolu damay wax ne damaa foog ne Macron da wax nii rek waaye pour ñaawal sénégalais yi mais du gëm ko sax moom ci moo xam ne ne ko ndax Macky Sall nit la koo xam ne depuis mu ne ci réew mi depuis mu toog ci bopp réew mi li mu fi def sengoor defu ko fi du Diouf defu ko ci Abdoulaye Wade mii fi mujj defu ko ci mii mu wut tey nii jàpp ay nit di tëj jàpp ay nit di ray jàpp ay nit di leen def loo xam ne nii maanaam kenn mësu koo xalaat ci réew mi ne dana fi mas a am lépp mag Sall moo fi ñëkk a indi may wax ne nag Sénégal fi mu toll nii nañu xam ne ku yàq suñu réew kenn jiitu ji kenn jiituwu ci kii yéen a ngi teewlu IATV Macky moom ab surga rek la gëmut boppam président bu waye di la mës a gëm ne mën naa dem sans Macron moo tax Macron di ko manipuler lu mu ko neexee di manipuler wala sénégalais yi ñàkk leen a nawloo tegu leen fenn kon damay wax ne dafa am loo xam ne ne bu amee maanaam li ñu war a def mooy ñun ñëpp ñu fexee xeex li nga xam ne nii moom lañ fi bëgg a def te indi fi li nga xam ne dal na suñu xel waaw parce que fi mu toll nii réew mi toll na foo xam ne nii ma wax leen benn affaire de xeex rek moo fi mën a jëlee lii fi nekk nii. mais taxaw croiser les bras fajul dara ndax Macky fi mu toll nii chaque jour que jafee day gën a am fit di def li muy def parce que sénégalais yi nee nañ teg defuñu dara jéemuñu dara waaw jërë ngeen jëf ñu leen sant leen gërëm